attendez-vous à des rebondissements, à des retournements de situation, mais inattendus. Euh, j'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux par rapport aux gens qui vraiment ne savaient pas vraiment pourquoi il y a tel changement, pourquoi il y a tel choix qui a été fait. C'est des choix artistiques. Hein. C'est des choix artistiques. Et euh, une série évolue. Euh, et voilà, et on évolue avec les acteurs. Donc du coup là, on a une nouvelle saison 2 qui a, y a une continuité de la saison 1 avec des ajouts. Ils l'ont très bien accueilli, hein euh, on a lancé une première saison sans communication et euh, ça a quand même fait son effet. Et euh, on ne pouvait pas en attendre moins des Sénégalais, donc c'est tant mieux et merci encore à eux. donc voilà, tout le, mérite leur revient. Je n'étais pas dans la première saison. J'ai plutôt vu que les gens l'ont bien, bien, bien accueilli et j'espère que ce sera pareil pour la deuxième saison. Ce sera toujours dans la même lancée comme je l'ai dit et puis avec plein de surprises ce sera une des surprises en fait que vous aurez aujourd'hui. Je vous laisserai en fait découvrir euh, lors euh, de, la projection en fait de la, du premier épisode. On va essayer de ne pas spoiler, mais à beaucoup de surprises, beaucoup d'authenticité et d'émotion. On va résumer ça à ces trois mots un sujet qui est universel aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet, les Sénégalais peuvent se l'approprier. C'est un sujet euh, qui touche à toutes les femmes, tous les Africains. Et je pense que c'est ce qui a fait la petite touche de Yai, cette petite sensibilité que les spectateurs ont eue pour nous. Et euh, je pense que nous aussi, en tant qu'acteurs, c'est ce qui nous a aussi marqué et qui a fait qu'on a pu euh, s'embarquer dans cette aventure-là avec Calista. Oui. Alors, une dernière question. Euh, voilà, on, peut également s'attendre à ce que vous fassiez beaucoup plus que vous aviez déjà fait. Ah, forcément. On est passé à une saison 2, donc ça veut dire qu'on a fait plus de travail qu'on avait fait sur la première saison. voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on on a vraiment travaillé avec du cœur sur cette saison-là. Euh, l'attente a été très longue pour les, euh, pour les téléspectateurs et même pour nous, les acteurs et la production. Donc on s'y est donné corps et âme et on espère vraiment que les gens pourront accueillir ça de la meilleure façon qu'ils soient et qu'ils ne seront pas déçus du tout. tey jii nii mën nañu xaar euh, loo xamante ni bii dina am ay bouleversement dina am ay déclic dina am aussi ay vraiment émotion yu am solo yo bi tay 2.0 saison 2 bi dina ko indi déjà ñun ci personnage bi incarné le personnage de Beytir xeyna sax ñenn ñi dinañ doon xaar ne ah, Beytir dina soppeku dina gis nañ ne Beytir ndox du bay yonom donc bayiwul fi lu mu dafa gën pire sax tay boko dé personnage xamanteni bi difficilement lañ ko doon incarné aussi nit ñi duñ la li nga ni mu mel donc suñu ci saison 2 personnage bobu au lieu que mu changé mu gën graw loolu xaw da fay da fay xawa doy waar. li koy wane mooy on en est à la saison 2 té nit ñi saison 1 bi si man marqué na nit ñi bu baax donc ça veut dire que le message est passé donc fi ñu jaaroon rek dañuy jaaraat jëm leen euh, indi lu bees indi lu ki ci thématique bi inshallah ni première saison bi mel rek la deuxième saison bi mel. ndax li actualité lo xam ñu ngi koy dund mu ngi ci biir kër yi mu ngi ci mbedd mu ngi fépp waaw te loo xam ne rek ci jigéen lay daal mën na dal góor waaw point bu sensible boobu rek moo tax ñuy def waaw te duñ bëgg nit ñu xool gis ba xam ne lii waaw du lu làqatu am na ñoo xam ne day am ñu nëbb ko te nëbb warul da koy wax fésal ko comme ça mu mën a am solution. dañ jàngoro boo ko waxul du faju kañ loolu la. <laughs> xam nga tey bu fekkente ni ñëpp dañuy wax li ñëpp xam kon kenn du xamal kenn.

bu ñu demee ci saison 2 bi euh, dinañ gën a comprendre euh, problématique boobu noonu yooyu noonu nga xam thème yu sensible la nga xam mu ngi ci biir famille yi mu ngi ci biir société bi mu ngi ci biir dëkk bi euh, ñu bañ ko wax mais am na nu koy waxee ba nga xamanteni bi nit ñi dinañ ko mën comprendre dinañ ci mëna régler les problèmes yi nga xamanteni bi mom lay évoquer. donc ñu xaar lancement bi ñu xol lan lay wane ban goût lay joxe. waaw ñu dem ci lancement bi bu ko défé rek dinañ xam vraiment ah ndox du baye yonam té li indi inshallah dina nek lu am solo. merci di remercier aussi wa dakar ak tu gis nañ sen liguey rafet na trop machallah buñu amone ñu amoon bëri rek ñu wone ni rek dina gëna accès à l'information vraiment ngeen koy jëli fu sori diko indi nit ñi ba pare di jappalé cinéma bi par c' est ñu remercier leen à chaque fois dañuy faté di remercier ñi nek ci ginnaaw. Euh, mooy média yi nga xamante ni bi ñooy accompagner série yi accompagner acteurs yi accompagner réalisateurs yi producteurs yi équipe technique yi di wane li ñuy def kon donc gàcce ngalaama yéen merci beaucoup Dakaractu merci ñiy seetaan Dakaractu yëpp